et nous ñu ku ak santam eh, bi centre centre Jacques Chirac bu Pikine eh, pour def point de presse par rapport ak situation bi xew ci réew mi jamono ñu toll man madame Yaye Duf euh le comité consultatif eh, des organisations de femmes département de Pikine mais aussi ñu bokku ci gouvernance économique sociale et environnementale de Pikine euh, te ku nek xam nga ne ëpp bi li ko tax a jóg que ñu ànd ñun ñëpp acteurs yi nekk Pikine pour construire des territoires cohérents mais aussi compétitifs et porteurs de développement loolu suñ koy wax day fekk jàmm am te ñun jigéen ñun jaboot jàmm rek moo ñu dikk loolu moo tax ñun ñu adhéré ci ëpp en tant que organisation dafa am département de Pikine mais aussi ñu ñëw participer ci point de presse bi wax suñu xalaat suñu taxawaay par rapport situation réew mi globalement mais aussi par rapport ak situation département de Pikine bi ñu nekk wax nañ ko léegi bu jëkkoon da nga gis mag ñi su réew mi demee ba xaw am lu jaxasoo def ay lël nga daan dégg suñu ne gis ñu la ba mbaaw boobu temps suñu buggee waxtaan dañuy dem toujours fu kenn nekkul fu wax seen nas fa fas fa la nga xamante ne moo nekk ligne de compte askan wi te man loolu laa gis ci ëpp bi nekk Pikine kon tey buñ toogee fii en tant que doomu génn suñu kàddu pour ñëpp dégguñu mais à un niveau très haut sax et même sur le plan international pour nous xamné ne fi le la violence bi uppé ndax ñu nekk ci banlieue bi té ku wax banlieue wax la promiscuité ku wax promiscuité wax problème yu bari té ñu togo do fi xam xamné ni pigine dafa am lu mu soxla lu bari dafa am pigine lu mu manqué lu bari té ëbbi ñu àndoo ci pour and ak suñu autorité tant local que que que institutionnel pour mën ko saafara loolu moy mission principale bu ëpp ngon tay buñu bu ñuy saccager ay institutions publiques ñuy saccager ay biens privés ñuy xagn seeni kër xagn seeni dox xagn seeni dem xagn seeni dëkk ngon nag dafa jaar duñu taxaw def li ma ngi daan def waxtaan kaddu ba nit ñi xam ne kat Pikine gi kat ñun lii xew ci réew mi gënaluñu neexuñu rawatina ñu jigéen ñi ndax jigéen kat jàmm ko jikk ndax suñu amulee jàmm ñun jigéen askan wi du am jàmm ndax ñooy yaay ñooy soxna ñooy maam te ñooy nekk ci kër yi fan yii yëpp boo gisee euh, activité économique dafa taxaw te Pikine dafa bëri activité informelle li fi ëpp activité informelle ngon ku xëyul liggéey man je pense que sa dundin du neex loolu moo tax ñuy lancer un appel a toute la communauté département de pikin ñu xippi xool taxaw seetlu xam ne lii ay saafara yu jot jóg jot na war na si mën a am que ñu téye suñu ay doom ndax bu ngeen xoolee violence yi li ci ëpp ñu ci faatu ay xale yu ay xale yu ndaw la yu ñu soxla ñun pour ñu gunge ñu jàppale ñu moo tax maa ngi profité occasion bi di jaale sama bopp ndax am naa si mbokk bu gaañu gannaaw raay sama doomu ni jaay ci la gaañu gannaaw raay di jaale askanu Pikine bi yëpp bu doon benn dem sax metti na mais ci ñëpp ñu ngi jaale seen mbokk jaale kilifa yi département de pikin mais seen jaale tout la communauté Pikine à travers sa ëpp pour wan leen ne lii ñun ñëpp la métti kon jàmm lu ko waay jënd rek jaar na ko defar lu ci xiir waay na ko yokk ndax gisuñu luñ mës a defar di defar ñu yàq amul sens amul solo kon maa ngi remercier mbokki ab bi yëpp teew teg suñu conférence bi suñu point de presse bi pour wax que ne vraiment nañ tey suñu ay doom ci kër yi ñu suñu ay doom delluwaat ci cosaan ni mu doon téye xale ci kër xale bu daan génne ci kër daf daan jàngi su wàccee dugg ci kër ndeyam wala kër baay nga xam foo fanaan xam foo yendu xam koo àndal xam koo nekkal waaye yooyu bëri ñu koy commencé ñàkk moo tax ëbbi di lancer cet appel à la population de Pikine que ñu xamaat ne nous sommes les gardiens

ba solution génn fenn ndax lépp table lay lépp ça va se terminer autour d'une table ngon bala muy jot nañu toog ci table ji ñu waxtaan pour que yu mel nii fi amati vraiment ci turu bi euh, ci turu jigéen département de Pikine vraiment ñu engagé waat suñu engagement pour ànd bi ñu pour rek dara rek moo tax a pour defar Pikine kese taxaw taxaw ndaw Pikine kese taxaw jigéeni pikin kese pour que notre chère ville soit une ville compétitive durable mais ici porteur de dynamique communautaire tant que yooyu valeur amuñu ko ñëwatul ci pikin man je pense que suñ mission day day des mais nii ma gisee ëpp bi commencé ko suñ ko continuer nii ci ay doxalin man gëm naa ne ëpp bi dina egg foro suñu njort te loolu lañ ci xaar

le pays le Sénégal a vécu ces derniers jours l'un des moments les plus sombres de son histoire du fait d'événements politico-judiciaires qui ont causé la perte d'une quinzaine de vies de vies humaines notamment de jeunes et de nombreux dégâts matériels au niveau des institutions publiques et privées particulièrement dans le secteur de l'économie informelle. Ces événements n'ont pas épargné le département de Pékin qui en a subi de lourdes conséquences avec l'enregistrement de la mort de plusieurs jeunes, un pillage des espaces commerciaux, des institutions financières et le saccage de certains services administratifs du département qui souffraient déjà d'un déficit infrastructurel. Parmi ces structures victimes du département des saccages perpétrés par les jeunes en furie, on note Saint Jeune TV et le centre incubateur du réseau PopDev, qui est un acteur éminent de la société civile et membre de notre UP. C'est le lieu aussi de formuler des remerciements à l'endroit du comité départemental de la Croix-Rouge de Pékin, qui a mis systématiquement en place un dispositif d'intervention d'urgence pour la prise en charge des victimes. En effet, les séances de violence menées essentiellement par des jeunes qui sont à l'origine du déclenchement de la violence constituent l'expression d'une jeunesse désœuvrée et en manque de perspective, victime d'une faillite du système éducatif institutionnel et communautaire. Face à cette situation plus que préoccupante, le hub gouvernance économique, sociale et environnementale de Pékin en tant qu'entité de la société civile regroupe l'ensemble des organisations communautaires intervenant dans le département de Pékin déplore la perte des vies humaines et présente ses condoléances aux familles et à toute la communauté affectée et lance un appel aux autorités du département, aux populations, mais surtout aux jeunes de Pékin à prendre les mesures nécessaires pour l'arrêt systématique de la violence, à sensibiliser les jeunes par les conséquences de la violence, à sensibiliser les familles sur l'importance de la rétention des enfants lors d'événements publics susceptibles de mettre en danger les vies des enfants, à promouvoir le dialogue pour la résolution des conflits sous toutes ses formes à renforcer l'intervention des leaders communautaires, des femmes et des religieux dans la prévention et la protection des enfants et des jeunes contre les violences, contre la violence sous toutes ses formes. À redynamiser l'éducation au sein des familles, des communautés et de l'école. À redynamiser l'éducation à la citoyenneté et au civisme au niveau des communautés et surtout des enfants et des jeunes à promouvoir la prévention des conduites déviantes chez les jeunes, notamment l'usage de substances euh, psychoactives, à renforcer la sécurité au niveau des institutions publiques et afin à promouvoir l'offre d'alternatives aux jeunes en manque d'occupation et de perspective. Fait à le 8 juin 2023 par l'ensemble des membres du gouvernance économique, sociale et environnementale. Nous vous remercions.